salaam mbokk yi safar bi 7 maa ngi bëggee ñëpp di ziar ñëpp di ñëw ak yéen si information tàggat yaram yi gën a fës si journée bi tombé na ko mën si club bi Martinez bu Inter de Milan Lautaro Martinez nag du Paris Saint-Germain kese Manchester United tamit intéressé intéressé wu nañ si kon aussi kii di Kylian Mbappé jóge si club bi. waa Paris dinañoo jéem a recruter Lautaro Martinez pour remplacer ko beneen joueur bu Paris Saint-Germain di utal remplaçant bokk na si kii di Lionel Messi bi nga ne contrat mi ngi war a jeex te ba léegi prolongé gul kon waa Paris ñu ngi am xel ñaar ne day jóge si club bi moo tax nag fu mu ñu ngi xool kan lañ ko mën a remplacer te kuñ ko bëgg remplacer mooy Joao Félix bi nga ne nag mën na jóge Atlético ñu jàll Espagne yi di Real latéralu Bayern Munich bi di Alphonso Davies kon nag lu ñu bëgg mooy renforcer seen côté latéral yi te kii di Alphonso Davies bokk na seen ay cible ba léegi ak Real Madrid kii di Dani Ceballos bi nga xam ne nag euh, contrat am ak Real Madrid mu ngi war a jeex moom nag mën na jógee Real gratuitement si mercato 2023 bi ndax waa Real waxaguñ dara ak moom si waxu prolongation contrat club bi di euh, Betis Real Betis ñu ngi koy bàyyi xel te bëgg nañ ko recruter. waaw Paris ñu ngi bàyyi xel joueur Real Madrid bi di Rafa Marin nekk si eh, Castilla muy équipe bu ndaw Real Madrid bi waa Real nag bëgguñ koo jaay te fu mu toll nii nag eh, waa Paris Saint-Germain pare nañ pour jënd clause libératoire bu toll si eh, trente millions d'euros ñu jàll FC Barcelone ñi di waa Barça ñu ngi bàyyi xel situation Joao Félix ak Atlético de Madrid kii di Joao Félix lu mu bëgg may jóge jot naa waxtaan ak. waa Barcelone si joueur bi di Joao Félix. ñu jàll Angleterre léegi officiel na kii di Phil Foden prolongé na contrat ak Manchester City ba 2027. Nuno Espirito Santo mu ngi waxtaan ak Wolverhampton pour def pour def dellu seem club bi. Tottenham lu ñu bëgg mooy prolongé seen contrat wu entraîneur bi di Antonio Conte lu ñu bëgg nag may profité si période de coupe du monde pour prolonger contrat am. kii di Douglas Luiz prolongé na contrat am ak Aston Villa contrat bu gudd la prolongé waa Newcastle ñu ngi bëgg a prolongé contrat wu seen joueur bi di Bruno Guimaraes Bruno Guimaraes nag club yu bëri ñu koy bàyyi xel te bëgg nañ ko recruter moo tax nag lu ñu bëgg mooy euh, prolongé am balaa yeneen club di si euh, teg loxo dinañ ko yokkalaale salaire am si euh, prolongation contrat boobu noonu. ñu jeexle ak championnat Sénégal bi nga xam ne tàmbali na démb démb ay ci euh, Ligue 1 bi première journée yi résultat match yi nii la tëddee Dakar Sacré-Cœur moo door a jàmbaar de Teungueth FC door a AS Douanes Jaraaf ak Sonacos dañoo nul 0-0 Stade de Mbour door a Guédiawaye FC 1-0 tey si euh, dimanche bi AS Pikine dina laale ak Génération Foot su 17h jotee Casa Sport am Cneps Excellence Linguère dina am Gorée si euh, Ligue 2 bi résultat match yi doon am démb si samedi bi Duc ak Walidane dañoo nul FC ak Oslo tey jii si dimanche bi Kër Madior dina laale ak Wakam Ñambour am Demba Diop FC HL Bru Fiska am HLM bu Dakar Port dina am Thiès FC Mbour Petite Côte am jamono Fatick match yooyu yëpp 17 heures lay daw foofu la ñuy yemale xibaar yi di leen jox dig daje beneen yoon si yeneen xibaar di ñaan ngeen aimé activer notification pour xibaar yi c'est-à-dire partage information